suñuy jaar-jaar daal dañu nekkee ndaw dañoo su ko xaar doon jar danaa ko am. na foofu nga mën a abonné ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque jour. di ndokkeel bu baax ki nga xam ne tey moo jiitee ay rakkam. ak i ay magam bu bés bi am di ku baax moom it ku koowe ku bëgg yàlla teel a jël ndawam bàyyi ko ñëw ànd ak Cheikh Moussa nekk jigéen bu njëkk a def laxasaay ci kër Cheikh Moussa si soxna Jaal ñu ngi lay ndokkeel bu baax yaag say rakk yépp ndokkeel it di tax ma ne say mag mooy soxna ndey ci wàllu góor ñi kooku moom sëñ Modou la bàyyi Fall bi maa ngi ndokkeel bu baax Modou mag ak ñi mu àndal ñëpp noon la de di leen ndokkeel yéen ñëpp góor jigéen mag ak ndaw ñaanal yàlla yi seen waajur bu góor axwa nga xam ne Cheikh mu si daf koo xame woon ci maarif su waxee mu ne Cheikh Jibi daal dëgg-dëgg su ma ko mënoon mbir mi balay dem mu naan ko xaadim mbàkke xasayit su ngeen ko déggee mu ñëw ci Cheikh Moussa ci jëmm jooju la jaar ci sëñ jibi la jaar sëñ jibi wàccoon ak njabootam yépp dafa nekk ci ndakaaru yàlla jox ko mu nekk milliardaire doomam yépp mu yar leen kenn yàquwut loolu neew na de dëgg-dëgg am na jagle yàlla te it su fekkoon ne dañ gaaw a séyi sax nga ne liñ gaaw a séyee tax waaye kenn ku nekk bala ngay séyi yàlla def la fi bay ba nga mat sëkk te ci digg ndakaaru lañ ko defee nag jëmm jooju yàlla dimbali na ko ci njobootam li yéen waxoon ne yàlla moo ma yar te rafetal yar bi kii yàlla moo ko rafetal yaram ci njobootam jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jëmm jooju yàlla yàlla yóbbu ko ci aljanna yi gën a koowe ci aljanna yi li yéen waxoon ci addis rek mu am zahir am baatin waxoon na ne nit ku nekk sàmmkat la ci njabootam bépp nit danañ la laaj langa doon sàmm mais kii alhamdulilah sàmminam rafet na lam bëggoon ci yàlla moom la Cheikh Moussa bëggoon ci moom ci yàlla yàlla may na ko njabootam ñëpp àgg nañ ci yàlla ñëpp xam nañ yàlla ñëpp ñu ngi dund yàlla loolu alhamdulilah rabbil alamin te yonent sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne képp ko xam ne wàccee nga alquran penc mi yàlla danañ la sol mbaxanañ urus mbubu urus dalu urus nga di ko doxee di dang dangi di dem ndax loolu arab mooy alquran wala alquran ak arab bokkuñ loolu la Cheikh Moussa Sy daan taqale ndax arab ak alquran ñoo bokk ndax arab ak alquran bokkuñ suñ la ko laajee waxal ne alquran ak arab bokkuñ alquran moo nekkoon ci dënnu saxaaba yi yonent bi defoon ko ci ñoom ci jànguñoon dara yonent bi def jihaar jàpp yéeféer yu bari ñii ne nañ leen rey ñii ne buñ leen rey gannaaw yonante nag mooy kilifa gi mu ne leen buñ leen rey yàlla wàccee na ci man ne nañ jàpp ci ñoom kenn ku nekk jàngal fukki jullit ñeme nga wax ne alxuraan la leen jàngaloon déedéet alxuraan moo nekkoon ci seen dënn mu bëggoon araab yi dégg ko ci seen lakk xam na ne suñ ko déggee ci seen lakk nit su déggee sa lakk da nga koy bëgg danga koy déglu mu ne araab yi jàngal leen saaba yi ñi nga xam ne jànguñ jàngal leen leen seen lakk ñu jàngal leen arab soo jàngalee fukki nit nga dem doo wax mu jàngal leen alquran doo ko wax mukk loolu moo tax alquran ak arab bokkut yàlla wax na ne wàcce naa alquran ci làmmiñu arab waxut ne alquran mooy arab daf ne wàcce na ko ci làmmiñu arab ci kuy lakk arab wa ma arsalnaa yónneewuñ min bi rasulin ci benn yonant ilaa bi lisaanil xawmi yónni wuñ benn yónnante lu yónnante bi ñuy yónni ca ñañ koy yónni ñoo ñoom ñooy bokk déggoo benn langue maanaam seen famille lay doon ñooy bokk benn nation bi su fekkee olof lañ olof lañ fekkee pël lañ pël lañ su fekkee tukulóor lañ tukulóor lañ su fekkee ay grec lañ grec lañ grégien lañ grégien la ñuy doon su fekkee ay latin lañ ay latin la ñuy doon su fekkee ay américain lañ américain lay wax ak ñoom ku ñëw ci xeet di wax xeet wala ngay wax ak ñoom jamono googu yaay yónnantu xeet woowu yonent bi sallallahu alayhi wa waxoon na ne suma boroom xam-xamu xeet yi ñoo ëpp doole yonent bani Israil bani Israil ku tedd ki dafa ñu waxoon ne am na ku ñëw am benn nit am na ku ñëw am ñaari nit am na ku ñëw amu dara mu ne waaye liñ ci ragaloon dëgg gu rek rek la loolu nag njàmme daaru ragalu ko fii ci daaru laa ko ootee fii la ko suma borom motalee te du ma jógee koo daaru gi suma loxo ca ko defee na ko ci daara ba mu mat ndax ñooñu seen wax waxuñ kaddu yàlla moom la ñuy waxee te kaddu yàlla du dañ mukk lu kaddu yàlla jib loolu rek nga yàpp loolu kooku mooy seen maam Cheikh Moussa Sy Ndiamé borom daar ngeen taxabalal ko bés bu mel nii alhamdulilah dama toog ci tiktok xaw ma lañ koy wax waaw tik rek topp ko rek da ngay def tik rek topp ko di ko xool rek loolu mooy topp boo ne tikk rek da koy topp da xool rek da xool rek yàlla atti ma gis benn kilifa mu yedd benn xeet yedd Ibaadu yedd leen ŋàññi leen ma ne ah kooku uute na ak Cheikh Moussa uute na ak taalibi Cheikh Moussa so daje woon ak taalibeem bii moom du leen yedd mukk weddi lu la neex kontra lu la neex fa nga toll foofu nga waxee ci sa xam-xam moom nga waxee waaye xam-xam rek nga bëgg boo gis xam-xam la soxla weddikat boo gis xam-xam la soxla ni ñuy ñoom koo gën a dégg yàlla bii ku la ci yéem la koo gën a dégg Ibaadu wax nañ dëgg looy toppee sëriñ danga xam la yem ci loolu la xam topp ko loo koy toppee sa aada yi maam nga ko toppee te yàlla soxla loolu bis pénc wax nañ dëgg sëriñ ak xarit bokkut sëriñ duñ ko doonee ci baay man sa papa laa laa woon tijaan ngay doon sa papalaa laa xaadir laa woon xaadir ngay doon Cheikh Moussa ne gajj yooyu sëriñ si waaf gajj na ko loolu taxum coowam li bari loolu rek la nag amu leneen loolu rek lañ ko bañee nag bu leen bu ñu leen doon comme ay jigéen yooyu sëy ñu di leen doon jigéen ñu gaañu jëkkëram ñëwaat doon ko keneen ñëwaat doon ko keneen ñëwaat doon mu ne déedéet bu leen ko nangu waaye ku la dimbali ci yàlla nag sakket yi sax sakketam yi sax waxum sakket yi la sakket yi xam nga ay bant lañ sax say sëriñ lañ lim la dimbali ci yàlla moo tax lim nga nekkoon yéefeer dong waroon dee dugg safara mu fexe ba jëlee la ci loolu yëkkati la ba nga gën a koowee ñu koowee ñu soo sagganee kooko gore woo baaxoo kooku rek lañ waroon yedd soo sagganee kooko gore woo baaxoo ndax yow su ne ko doon Cheikh Moussa doo yëg li nga war a yëg doo xam li nga war a xam doo àgg fi nga war a àgg su boobaa yow gëré oo baaxul mu xas ibaadu rahman yedd leen ŋaññi leen ba tuddee leen sax ay kalbu ma ne su fekkoon ne taalibe Cheikh Moussa gii la nag moom du wax loolu déedéet sëriñ waruñ ko topp sëriñ warta am yonent bi rek yàlla rek lañu war a topp ak yonentam loolu la wax lii wax neex naa lay wax dëgg yàlla soo demee ci alquran da ngay fekk baat boobu yàlla dàq ko saxalaat beneen baat wala boog mu yëkkateyaat beneen baat bu gën a koowee tegaat ci liñ doon dàq mu tegaat ko ne lii mu war naa am liñ dàq noonu yàlla saxalaat na ci alquran ne war naa am soo demee ci surtu ni moo wax ne suma mbir mii bi may départ dama ko càmbar ci alquran fekk muy moom càmbar ko ci addis yunti fekk muy moom càmbar ko ci waxu góor yàlla yi fekk muy moom loolu la wax soo demee ci suurtu nisaa yi suñ borom dafa wax ne wa atiwu laaha benn ngoog mooy topp leen yàlla wa atiwu rusula ñaara ngoog mooy topp leen yonent bi xanaa ji jàngut la ca kanam wa ulul amri minkum topp leen borom mbir yi tukkee ci yéen loolu mooy yow la maaw diin di wax naa ko beneen waaye mu ne est-ce que du buur yi du nangam ma ne ko xanaa déggoo sa diina bi alquran ñëwee bu taxaw amatul buur bi mooy atte wala buur bale mooy atte lépp alquran moo koy atte amir rek moo amoon amir mooy njiitu jullit ñi mel ni gouverneur bu nekk misira bu nekk yemen bu nekk béréb sangam bu nekk béréb sangam boo ko daan wax ne bi nekk Kaolack bi nekk njaareem bi nekk béréb sangam gouverneur boobu yëpp ñu ngi tënku ci président de la république waaye président de la république jamono googu yonent bi lay doon dipil kitaab bi muy àttee nag nekk alquranul karim mu jeex tàkk loolu moo tax ulil amri minkum alxulamaa u diin ulil amri minkum mooy borom xam-xam yu doon yonent yi moo tax mu ne na ngeen leen top su ngeen gisee ñu def ixtilaaf njuum te nag foofa la dëgg nag lii kay la ñuy waxtaan ak nit xam-xam lañ weddee naam téereb yàlla lañ la indil dëgg dëgg sooy wax bu leen yedd bu leen xas indil téereb yàlla bi ñu indi waxtaan ak ñoom ah loolu ñu daan wax de ku ko xëy daf la ko gën a dégg yàlla ne su ngeen gisee ñu def ixtilaaf farujon ilallah na ngeen dellu ci yàlla wa rasuli ak yonentam in kuntum tuminuuna billah saalika xayran ahsanin tawilan mu ne na ngeen dellu ci yàlla ak yonent bi yaa ngi dégg mu ne loolu moo gën ci yéen na ngeen bi yaatal werante bi kii baaxut kii nii la mel kii nan la mel kii nii la mu ne déedéet bu leen yaatal loolu alquran lii la wax waa ji ne waaw ca ba mooy waxtaan ak ñoom ñun suñ waxtaan duñ uuteeg ñoom dañ leen di jege ndax Cheikh Moussa Sy daf doon jege borom xam-xam yi waaye ci dëgg ci dëgg suñ indi woon seen xam-xamu saahir yi firi saahir yi mu indi leen firi baatin tëggal leen looloo tax bu tey gii may wax amul benn jàngkat bu may toogat juróomi minute ci darajee Cheikh Moussa Sy te nanguwoo moo xam ngay nga nangu jël wala nga ne ma wax nga dëgg aw sa yoon dem ki njëkk nekk Ibaadu ki ko njëkk a nekk yëkkati këram yëkkati këram carrément joxe ko sooy dem Mbuur jóge ko Dakar jëm Mbuur côté yoonu Joal bi boo jóge ko fi kër gaang la feetoo càmmoy mu def ta benn statut islamique nga xam ne école école Ibaadu Rahmaan fa lañ ko njëkk a ubbi beneen bi moo may waxal de moom mooy wax lii de beneen bi ñu ngi ko ubbi euh, fii Grand Yoff mu ne ñaari pakk yooyu maa koy njëkk a jox ci Ibadou Rahman ñaari pakk yooyu maa ko njëkk a jox ci Ibadou Rahman waaye yow dafa am lu ma soxla damaa bëgg a invité mbooleem ñi nga xam ne ay jàngkat lañ ci Ibadou Rahman ñu ñëw toog ndax yow kat seen sëriñ bi de naxul leen ngeen ni seen sëriñ bi lu wax ma ne ko lii la wax. dàq ngeen ne waruñ topp sëriñ sëñ bi ne aha kay sëriñ dafa am ñu war a topp ak ñu war a topp sëriñu aada buñ ko topp ci paap suma jébaloon ci moom diwa jébaloon ci moom diwa jébaloon kon foofu ngay dem moo indi coow li ci àdduna bi loolu rek lañ sikkee Cheikh Moussa amul leneen taalibe buñ sikk loolu lañ la sikkee taalibe buñ wax luñ la war a wax lañ la waxee fi sa papa nekk dem fa déggoo sa ndigalu papa da ngay dem taggu sa papa ba sa papa nangu loolu moom amut ci lislaam jàppalekat yi nag ñoo ko saxal amul ci lislaam da ngay taggu sa papa ñëw door a dem ci Cheikh Moussa bi ngay jébluwaat ci sëriñ bi danga war a taggu ji amul lislaam diina yermande la diina barke la waaye diina bëgg la diina dogu la diina joxe sa bakkan la su nekkoon loolu lislaam dina agsi fii tey Omar mi nga xam ne bu muy dem ci yonent bi keroog bi ko papam déggee dafa daw gàttandiku Omar bun Xataab jël jaasi cor ko bopp ba daanu mu jël bopp ba teg ko ci pakk ne man maay Omar bun Xataab may doomu pakk bi may doomu pàkk bi moo tax ndeysaan daf ñu daan wax lu naa leen loo xam ne su ma déggul coow la xam naa ne liggéeyoo leen ko de su ma déggul coow la xam naa ne liggéeyoo leen ko de ku àgg ci yàlla jubóog jàngkat bu xamul yàlla da ngaa masla waxoo li nga war a wax déedéet mu sukk wala mu sukk ci soroon nangu wala waxoo li nga war a wax moo tax jàngkat yi du ñu topp mukk mukk ah ñemewu leen wax li ngeen war a wax fu leen jàngkat yi toppee wala boo xëy na dafa am lu ngeen xamut pour lu ngeen ko war koo tontu xëy na xanaa loolu la gars yi moo tax ñu sëgg rek jàngkat yi ngal ngal yi seen kanam jàngkat dafa am wax ci kanamu ko xam yàlla amu ci wax parce que contre ko rek la def benn waay Cheikh Moussa si def ko nandal ba mu màndi mu de ko mu tarbiye ko tuuti mu bàyyi ko mu dem Ousmane dem ci digg bi rek laay jaar mu dem jàngale ñu jox ko ñaari téeméeri élève mu de ko jàngale waa ji di saaga Cheikh saa rek mu sëgg rek muy saaga Cheikh Moussa mu sëgg rek loolu de meew mu ñuy sotti deret ngay naan rek bu yàggee rek sa biir bi day def tëf waa ji may ko jabar mu dégaasi Cheikh Moussa nag muy saaga muy sëgg rek sëriñ boobu nga xam ne du dara oote ni ñu ci saytaane jàngul alquran li muy wax dara ci ci alquran dafa xëy benn bés xam nga booy carte yàlla boo mboccetee day jaxase karti yi nga ngeen ñëpp ngeen ñàkk yàlla loolu la ko def dafa jaxase carte waaja nangu jabar ji nangu jabar ji ba pare dàq ko mu génn daara ji te booba toog na ay at ñëw ci Cheikh Moussa mu daa ko yéen ak yéen ak yéen ak yéen ak seen sëñ bi expliqué ko bu pare ci la waxee woon damaa bëgg yéen ñii di wax man li ma leen wax waxuma leen ne du ngeen déglu Cheikh Moussa di wax may naa leen audience pare naa pour TikTok yi yëpp TikTok topp ko rek ak lépp pare naa ko man na bu leen ma jàppee sëriñ parce que su ngeen ma jàppee sëriñ li ngeen ma bëgg wax du ma leen ko wax te gis ngeen nit fekk contre la ni la war a contre du xam ne am nga xam-xam wala amoo xam-xam damaa pare janoo yéen ñëpp lépp loo xam ne da ngeen ko daan weddi te contre ko ci biir kër gi ngeen laaj ma ko ma wax leen su ngeen ko gëmut na leen ma du noonu indi ma ni mu doon ma indi leen ni mu doon ci xam-xam rek nag xam-xam rek amul merekaay bu kenn wax ne sëriñ bi dañ ko wax nangam déedéet jamono googu du ma sëriñ euh, soldaaru Cheikh Moussa la ki may waxtaan soldaaru Cheikh Moussa la dañ bëgg mbir mi leer Omar Seydina Ousmane bi yonent bi tolloo ci waxtu bii Cheikh Moussa tollu tey ku nekk di wax di ngaw ngaw yi Cheikh Moussa nii Cheikh Moussa nii Cheikh Moussa nale Seydina laa bëggoon wax Seydina Ousmane daf ne naa jóg léegi dajale alquran ndax ñim nekk seen dënn yi ñu ngi boo génne adduna waxul ñu jàng de ñim nekk ci seen dënn yi mooy xam-xam bu wóor bii nekk ci dënn yi loolu la lu mu ci dajul amul ci la bakkanam des ñu ne bii daa la def ci gannaaw yunt bi nañ dajalee haat waxu Cheikh Moussa yëpp te indi ko ci dëkk mu leer suñ ko defee ñu jàll de suñ ko defee ñu raw de képp joxe ci yoon wi mu ne sëriñ du laaj waxee woo xam-xam de mu ne sëriñ du laaj talib gi day toog ba mu doy ko mu joxe ma ne ko yow sa xol bañ a joxe ci ne moo tax ngay wax loolu Cheikh Moussa bu waarewu doon danga nga dégg ba la ngay laaj du dafa waare nga dégg i tamit nga xam yàlla waroon dugg sa war a rek yow amoo dara yoroo dara li nga am yëpp ñàmmee ko moom maslaa bi ne rek nga am moo ko moom maslaa bi ne rek daf koo de ba daan ko ibulaay dëgg la mu ne ibulaay man sax fukki junni laa doon wax waaye ngom dafa ma ne ñaar fukki junni la mu ne ko ibulaay daan naa la ñaar fukki junni jox na ko am na barke am na waaye xelam dajadu si amul sax mu ne ko daan naa la ñaar fukki junni mu kott kott kott mu ko daan naa la fukki junni mu ne kott kott mu ne daan naa la juróomi junni buy wàññi muy wàññeeku rek moo gënoon a résistance ci nit ñi fañ toll na le day raam amul dara ah lay kooku mu ne Ousmane Ousmane Deme fii képp ku fi ñëw simbong nga indi ma jël say si simbong wekk ko fële jël samay bassin jox la soo demee bu fàtte ma dama lay ñoddi jox la say simbong jëlaat samay bassin loolu la wax de te kooku lu mu wax dëgg la moo tax xale yi bañ a joxe nekk ci seen xel yi tax ñuy wax lii tool Cheikh Moussa dañ dof dañu rëpp ñu ne ma sëriñ dañ lay laaj li gars yi wax sëriñ duñ ko dafa daf lay laaj wala sëriñ bi da ngay toog ba mu neex la nga jox ban ko ñaar yëpp mën naam am ñaar yëpp mën naa te da ko laaj xam-xam jox na la xam-xam léegi moo la moom ak lu mu la sañu da laaj dit yaa ko laaj xam-xam mu jox la xam-xam kay léegi muy lim la yor du la ko laaj ma ne yàlla mi ñu bind yàlla mi ñu bind moom day dafa laaj xam nga li yàlla wax ndax duma leen tegtal yaay mu leen di musal ci safara a laaj na la mu ne loolu damooy gëm yàlla ak gëm yonent bi gëm yàlla loolu mooy xam yàlla gëm yonent bi mooy seexu mu rabbi bi dënn yonent bi dimbali la ci yàlla mu ne da ngeen ay joxe seen bopp nag sa bopp a gën a foor lépp li am yépp sa bopp ko moom joxe nga sa bopp loo dese dese woo dara mu ne ak seen alal nag dégg nga ko de mu ne ak seen alal lii lu ci nit di waxati gën yàlla ci boppam laaj na te yow yàlla nga yëg ñu laaj la looy waxati déggoo kon foofu moom day daan taalibe yi bu leen ma liggéeyalati laaj leen ma yàlla ma jox leen ah ñu ne kon taalibe sëriñ bi war su ko wax leneen ndax Cheikh Moussa Cissé laaj leen ma yàlla la wax ma ne leen luy sababu nuzul bi lan mooy histoire bi ma wax leen français yi ngeen jàng bokk histoire bi lan la nga taxaw ma ne la sëñ bi dafa waxoon ne dafa nekkoon ci sëriñ sëriñ lantu donn baayam baayam donn ay taalibe baayam ñu di ko liggéeyal ay ñetti téeméeri mbaam ay ñeenti téeméeri mbaam mbaam su ngeen ko xamut mooy gerte bu ñu sol ci ay saaku ñetti téeméer mooy lan ci 300 hein? sacs 300 hein? sacs de racines de racines Wow. Hein? 200 kilos 300 sacs de 100 kilos de racines ça fait ça fait 3 ça fait 3 yi di ko ko liggéeyal di ko jox Cheikh Moussa ci taalibe baayam la ci eskay rek te loolu ay at la bu daanaka gaa yi màgget rek maari fan jël ci moom mu ne tool ba mu nga nekkoon tool bii ñuy yóbbu tey bii yóbbu tey man nag dëgg lay wax man Cheikh Moussa du ci fen fekkewuma ko fekkewuma ko de sëñ Mbay sekk mi ko fekkee moo ma ko wax booba Cheikh Moussa ooteegul dafa tàmbale oote fekkewu ma ko sëñ sëñ sëñ Babacar Si moo ma ko wax sëñ Babacar Si ne boobu man sax nu ñun ñi ñëpp booba kenn naanut waaye nag mu ngi leen bëgg a junju mbir mi mu ne leen képp ku ma doon liggéeyal bàyyi leen laaj leen ba yàlla ma jox leen yàlla mag ñoo ñaa taxoon waaw ñun nag biñ ñëwee oyu si ñun ndaw ñi lum ñu wax doo doo dali foofu daf ne fasu naaru góor laa yor danaa leen ko lebal waaye ku ma lebal soo demee ci course bi soo dawalee yaay gañe nekku leen ay xale yu ndaw fu ngeen wax ñu yéem leen ñii jànguñ dara te fu ñu wax ñu yéem leen suñ toogee jànkat ñu wax ñu yéem leen dem ngeen ci course gi gañe ngeen amu leen woon dara lu ngeen lekk tey sor leen ay base ak ay 4 x gaare ko mun ngeen koo sol ñuy dox fay leen bor loolu la waxoon de su ngeen gañee fay si ma bor gay na bugg a laxasu ci wax ba li nga xam ne mag ñu kobor yi nga xam ne liggéeyee nañ ko ba dee te waxu leen dara mu pare pour wax leen dara delloo leen seen bor ñun loolu la ñu wax xam nga lu mu ci teg saa rokki mi rokk sax la jëfandikoo saa rokki mi mu ne sëriñ day def nga def man nag ématuma lu gannaaw bu ma leen joxee saa rokki rek mi rokk booy def rek ma def lii la ñu wax kon loolu ci amati wax côté boobu loolu laa ci wax côté bale loolu laa ci wax kon kii lu muy waxati sëriñ moom daf lay xamal yàlla jox sa digganteeg yàlla waxu tappale la du dëgg du dëgg doo gis benn aaya doo indi benn aaya yow moomu de ko wax man nga ko inde te soo indee aaya aaya ñëwaat daq aaya boobu yàlla daf na yowmal xiyaam gars yi fi ñuy sukkandiku yowmal xiyaam benn bakkan mëna lu fa morom ma dara loolu la wax waa sa moroom nga wax ki la yóbbu ci yàlla sa moroom la Seydina Ali nee kula ku xamal benn araf rek benn arab sa borom la man arab arafu arab la arab yi dañ jàngal jullit ñi ñu mokkal arab yi génn dema delluwaat ci seen yéefeer ñu dellu si waat ñàng moomu la bi mu waxee ne ku la xamal benn arab sa borom la benn araf boobu mooy allahu te tey rey nag ñaar la كتاب العربية في اللغة العربية كتاب الله في الله لله والله ترى يلي نار لا بكتاب الله لا في اللغة العربية ترى عرب لا كلا من عرب لا نكوي وق بي ترى يلا لا ددلو شيء لا ددلو شيء لا ددلو شيء لا مود بمو يلي كسي تتنو هالقرآن كندي wax na it alluwa bi ko bind kii xalima bi ko bind dafa wax ci alquran ne li mu wax ne ku la yee ci alquran daf la ko gën a dégg de dafa wax ci alquran ne iqra kitaabaka kafa nafsika alyawma aleykum hasiban jàngal sa téere ci sa bopp ndax tey mooy bésab taxawaay sëñ bi mu ne yowmal xiyaam la nit ñi foog xiyaam ci arab firi leen ko léegi nit ñi xam ko mooy bésab taxawaay taxaw léegi seen bopp ku ne na jóg taxaw ci boppam bu jot sa bopp fidaaw ñu ne mooy fukki junne bisimilahi rahmaani rahim fukki junne ñaar ah, oh, yal na yàlla fa Cheikh Moussa mu ne da ngeen jàng alquran waaye yax gi ngeen jàng yax gerte soo ko mattee sa bañ yi day damm yot leen ma yax yi ma tojal leen yuq yi alaaji biraan booba moo raw ci gox gi alaaji biraan yot leen ma yuq yot leen ma yax yooyu ngeen jàng ma teg yuq yi ngeen naan ko yàq duñ ko jëriñ lu dul yokk bi nekk ci biir. laaj bi daan ne ko ah axsanul xaaliqiin yow da ñu raw dafa ñàkkoon kañaan nag ci kanam Seex Musa mu ne ko yow da nga ñu raw de kon nag téere arab bii ñuy jàng bokkut ak téere bële alxuraan ñu ngi ko wax di alif laam miim saalikal kitaab sëñ bi mu ne ñu ñu jàng waaye dégguñ téere bi nga téye nii moo lay joxoñ bale salikal kitab mu ne bu su fekkoon nag bi nga téye la wax dafay wax ne hansal kitab hansal kitab waaye daf ne salikal loola al kitaabu mooy téere ba mu ne lale nag mooy téere ba bil xaq ji dëgg téere bi lay jàngal dégg ban la dégg mooy yàlla soo demee ci lasmaul husna xaq turu yàlla la xaq turu yàlla la kon nag sëriñ yi contre gi ñu contre sëriñ ba mu bëgg a wéru dañ dañu waxtaanul ak nit ñi suñu waxtaanul ak nit ñi day leer waaye ñoom ñëpp ñu bañ a jël nag nafsu maanaam bañ waaj soo bañee waa ji li muy wax doo ko déglu du ñëw ci yow dangay seet li muy wax yàllaa ko wax yàlla xut ko su fekkee yàllaa ko ngeen àndu ci xam ne dëgg la man de njëmu si njëmu si njëmu si xeebu gi lañ bañ Cheikh Moussa mu ne njëmu si xeebu gi la gaa yi weddi waaye xam nañ ne li may wax dëgg la waaye njëmu su xëy bu gi nag mu ne moom la ñu weddi la waxoon rek kanam tuuti li ma koy force adduna bi yëpp dinaa leen dimbale gis nga ñi ko ñemee di ko waxee nañ dem rek saaba yi nii lañ meloon dañ demoon bu yàgg ñu bari teg te suuf ci suuf seet na Alioune yëkkati ko ca kooku moo tax yunt bi daf doon wax ne su fekkee xam-xam néeg la Alioune mii mooy bunt bi daqut ci jàng de maarifa taxul muy wax nekkut ndonoom sax sax njëkkut ci nekk xalifaam Babacar moo njëkk a nekk xalif ci xilaafa moo njëkk a toog ci te muy wax loolu ci Seydina Ali maarifatu moo tax maarifatu billaahi moo tax moom it xamoon na lii ci wax ak yéen xamoon na ko de xamoon na ko de mu ne Souleymane booba dafa am ko ma bëggoon nax yóbbu ma bitim réew ci bitim réewu xale yi te man lu wax su ma ko gëmee jeex na su ko déggee jeex na mu ne dem bàyyi mbudaay bul mbuday len mbuday nak c'est Omar yeen su ngeen ragalé man ragaluma man yeen su ngeen ragalé man ragaluma man waxuma la né dama oté gamu, oté wuma gamu. umra la oté ti mom la la wax bul wax nit ñi gamu man umra la oté umra laa oote laa wax umra. jërëjëf ñaan te wax ko ci digg adduna bi nag. jërëjëf ñaan ne dañ ma ne damay soppi gone yi wax nañ dëgg damay soppi gone yi ci liñ nekkoon dund gañ nekkoon dama leen ciy jële dund mooy umra mooy dund mbudaay Cheikh Moussa Cissé bi mu fay dugaat dafa fekkoon bés bii bés bii ma leen oo su ñëwee dëkk bi bay daje ku ne sol lu rafet ñu dem tuuru ji di woy seen woyu maam yi di wër dëkk bi dund googu moo fa nekkoon Cheikh Moussa tourné na dund gi dund muy umra jox ñëpp yàlla seen xol yi fees dal ma ne lii mu def kat bés bi nga xam ne ci lañ doon dox de woy woyu aada yooyu nga xam ne neen la mbudaay lañ koy soppi sikkar wër dëkk bi bu dëkk bi daj ñu toog fa kangu mi daan toog ñu xam ne Cheikh Moussa Sy gagné na ñu wax yàlla wax yàlla wax yàlla wax yàlla ci naaj bu tàng foofu lañ doon toog ci naaj bu tàng bi ci maam yi de ni ma leen di def noonu noonu la ko daan defee toog ci naaj bu tàng bi di waxtaan di waxtaan ba heure añ jot ñu dem añi ngoon nga ñu dellu siyaat ñëw leen oyus leen ma umra léegi nag umra bi oonaa leen yéen ñëpp baxuma góor baxuma jigéen dafa am benn gambiyee bu ne ci Amérique sax jëli say jërëjëf nit ko ñak kaña waji dafa deglu suma wax deglu waxu jibi ne ah man dey eh, am numéro jibi mu o jibi mu ne ko man dal deug deug dama bëggoon numéro sang bi jibi topatu ko topatu ko topatu ko bu jox ko numéro ba ak ki mo bax su ne koo xam ne na xam-xamam ci yalla setu day sëgg na kii da suma sang tu suma sang kan mo do sang ahlu bi kan mo do sang kenen ñun ñep ñu bok ne ak baay kii nekk sa baay kii di nekk sa baay mën naa nekk en réer rek jàppalante leen ma yéen a bokki kaas yéen a bokki baarada kaas bu ci naan moromam naan ma ko dimbalante leen ma góoreel yàlla yàlla fay si waaye ku ko def jàll de maa leen ko wax ku def li mu wax foo mën a jaar tekki daal kon nag ñu continuer foofu moom oo naa leen fii oyisi leen jàmme dama la doon Souleymane mbudaay gi bu takkee boobu dara xewut de moom xamoon na ne mbiram mbudaay lay takke ni yonent gi xamee woon ne mbiram mi dina lay takke mun ne Souleymane xanaa xamoon ne mbudaay bu takkee lageem toj bu lageem tojee réew mi yëpp toj loolu dama doon wax mu ne moom mooy xolu réew mi de billaahi wallaahi tallaahi moo ko wax man moom nee naa leen jàpp leen jëmm joo xam ne du leen fenal mukk ci soxna si dégg ngeen sama bandi barke démb de boobu ñun dañ koy wax yàlla nga carrément am yëpp toog ñu ne ko yàlla nga jërëjëf ñaan nag xam na ne dëgg la waaye foode yi ko war da ko naan yow ñi ñu ngi laay wax yàlla nga te namroo dafa waxoon ne yàlla la ana rabbuka la loolu la waxoon mu bàyyi bu gàmm mu jël micro mu ne sées bi mu waay taaj ku du seesu <laughs> yàlla dinaa ca toog gars yi nag dem ba ca kanam ñu naan ba ca kanam ñu xëre naan sëriñ du yàlla bu koy wax ne dafa xëre xamul li muy wax xamu ko de lu duut yàlla dafa am ndax bët yëpp a ko gis waa ker mbaa ngi ñuy dajaloo dem ci moom daa ci kaw lañ ne na ko sëñ bi ah yow li ñu ooyee ba ñëw uyu la nga won ñu ko ñu jàkkaloo ak moom te buñ ko gisee gisatuñ suñ bopp gisatuñ la yow nga ne sees buñ la taaj bu dut booba bokkoo mu ne ko ndax nit ñi ñëpp a tolloo li ngay wax ci seen boñu roog yi la ne seen boñu roog ñi ca gannaaw mu ne li ngeen foofu la ne da ñëpp a ci daj wala ko waxee da wala ko waxee li leen gars yi di ngur-nguri nag te Cheikh Moussa Koné suñ ko seetee ci téere dinañ fekk moom mu wax ko ba pare te lu mu wax mu ci alquran moom laa leen bëgg a indil bu leen neexee wax leen ne Cheikh Moussa oto laa soxla bul wax yàlla sax. allahu akbar ah. danaa leen indi aaya bi léegi ngeen janoo dara di ko nit yàlla ba dara maa farat naa fi kitaab bi min sa in kullun fi kitaabin mubiin yàlla mu ne téere bi def naa ci lépp. ku ne luy nekku ci alquran koo mën a doon weddi nga yàlla te weddi yàlla bakkaar bi gën a màgg la boo ne luy nekku ci alquran rek weddi nga yàlla téere boo xam ne juróom benn junne yi aaya la ak juróom benn junne yi aaya ak juróom benn téeméer ak juróom fukk ak juróom benn yow jàngoo ci soo ci jàngee soo ko jàngee ba jeexee setantaloo ci téeméeri aaya settantal mooy nga révisé at li nga jàngoon te moom heure boo ko xoolaatee gisaat ci loo xamu doon heure boo ko seetaatee alxuraan gisaat ci loo xamu doon kaddu yàlla la moo tax setantaloo ci sax juróom fukki saar setantaloo ko am loo ciy dindi am loo ciy saal mën nga ciy dindi dara loo ciy dindi dara te setantal lañ la wax setantaleen alxuraan yow da ngaa jàng firi rek setantaloo moom xaaraange nit moo ko tax a jox moom yàlla daf koo sàkk ba pare aar ko ndax daf ko sàkk ci boppam te nit dafa bëgg boppam gisoo nit ñu yaay ni mu bëggee doom li mu nekk suuxam moo tax li papa mën a muñ ci doom yaay a koo muñ ci doom parce que yàppam la deretam la suuxam la ombam la looloo tax léegi nag yàlla am na juróom-ñeent fukki tur juróom-ñeent Cheikh Moussa ne def leen ko muy benn wala ngeen def ko ay junne loo gis turu yàlla la loo gis turu yàlla la kon lu dewul turu yàlla def leen ko benn mooy muy ay junne léegi nag yàlla juróom-ñeent fukki turam yooyu ak juróom-ñeent ñu tuddee ko lasmaul naa xam ne jànkat yépp ci lañ tënku yàlla ne la yoomal xiyaam su mbooloo mi dajee nii nii nii déglul de su mbooloo mi dajee nii ñépp toog yàlla mu ne yow mi wax ne doo am sëriñ ñàkk nga yow ma nun dafa kullu naasi bi imaam yi yàlla nee na yowmal qiyaam kenn ku nekk ci sa turu njiit lañ lay oo du nekk di wax ay Souleymane ay nangam de Cheikh Moussa Ndiame borom daaru ñëpp jox du gis nga suma loxo yi niñ mel boo ne ñaam loxo yi jóg tànk yi jox te yow tuddoo tànk tuddoo bët benn tur nga tudd rek ñëpp jóg يوم نده كل الناس بإمامه نقبل كله فني وتن لين سرين دو يلا سرين دو جرين يوم القيام كلن كو وقتي وخلن كن دمال توك فلي يلا وخلن تي القرآن يوم القيام تي سترون جيت لا لا يو دلو لين تي القرآن ليركم لير نين لي وقت يلا وقت دفع لير دنيا أتيو بين آية سو أتيو بين آية دو دم يلا دفن لب بو تيوي بو نيب تيوي nee na dama leen di oo ci seen njiit tijaani mu ne Cheikh Ahmed Tijaani xaadiri mu ne noonu ñi xamut yàlla it mu oo leen ci turu kañ àndaloon mu ne su ngeen ñëwee oysi ko nag mu ne yow loo ànde woon ak ñii nga ne dama leen xamaloon yàlla ci baatu laa ilaha illallah ñu am tawhid mu ne yéen lu ngeen ànde woon ak kii mu ne wax dëgg yàlla kii daf ñu xamal yàlla ñu àgg ci yàlla mu ne ah mu ne ah, mu ne kon jël leen seen téere ci seen ndeyjoor ngeen dugal janna yow loo àndee woon ak kii ñii mu ne ah, man de suma askanu maam rek laa leen doon wan mu ne ah nga waaw mu ne yéen lu ngeen àndee woon ak kii mu ne askanu maam rek suñ ma bàyyi ci jàppoon suñ maam jàpp ñu ñëw jàpp ci mu ne jël leen fii jël leen tey du ngeen xam dara ci jox leen seen càmm yi ne kon yéen Eva Abdourahmane yéen ñi wax ne sëriñ du jëriñ yoomal xiyaam xaajale leen sëriñ yi yàlla ne ci turu sëriñ la lay o dangay wax ne sëriñ bu la xamalut yàlla loolu ngay wax kook jar na saagante xam-xam ngeen ay waxtaan rek nga yéeye ko moo xam ne kii wax na dëgg man nag su ma waxee yow ba pare dama lay soo gisee aaya beneen bu ko kontoor indi soo gisatul nga taxaw soo gisee beneen bu ko kontoor indi fu mu jëm amoo fenn foo war a jëm kon lii la yooy la wax yoomal xiyaam ci turu suñ sëriñ si lañ ñuy woo ñu di door a dugg aljanna yow li nga bëgg agul aljanna oto nga bëgg xaalis nga bëgg jabar nga bëgg dafa am loo soxla nga oo ko ci sa turu sëriñ ñu ñëw ne la bokkaale nga yow sa njàng moo soriwut moo tax ñu ne la bokkaale nga aaye nga ne ko bokkaale wu ma yoomal xiyaam ci suñ turu njiit yi la ñuy oo te suñ la ooyee nga oyu ci lañ lay yow soo awee ndeyjoor ñu yóbbu la aljanna te aljanna mooy li gën a màgg man li may oote alal bu tuuti la kon mën naa ko oo ci suma sëri sëriñ bii nga xam ne ci la ma suñ borom di oo ëllëg ah du ko weddi de lu ci nit de weddee fan la ko nit mën a teg waaye njuumte bi dafa am loo xam ne ci biir néeg la nekk su ngeen ko waxtaanee jàngkat yi ne leen seytaane ngeen baaxu leen parce que mbootu biir la mbootu biir nooy ñëw ci biir waxtaane kantuma ngeen di ko waxtaane ci ojo yi safara mooy lii aljanna mooy lii lana mooy lii te loolu ñu xamal leen ko ci ket faale sax parce que foroon nga foroon ngay wax ci biti te doyen yaa ngi lay déglu léegi mbokk mi ñëw jàppale <laughs> boo xam ni ñaa ngi koy déglu ci téléphone ci téléphone yi et eh, loolu malaaka yi foog ñu defuñ loolu ay yow noo nekkee yàlla yow noonu yow waxu biir néeg yàlla ne bu leen jaayee suma aaya yi njëggu néew bindkat yi nag ñoom dañuy bind xaatim yi la wax bu leen jaay njëg déedéet ayatullah mooy kéemtaanu yàlla loolu la baat bi tekki kéemtaanu yàlla mooy àgg ci yàlla gis yàlla dang loolu mooy kemtaanu yàlla noo bëgg a ñëw waxtaane ko ci mbedd mi bu leen jaay ay yàlla njëggu ne ku la ooti yàllay suuf yàllay asamaan ci suuf nga ne ko hey li ngay wax wax li ngay wax noonu waxu mbir mi ci biir lañ koy waxtaane ci bit lañ koy ci biir lañ koy waxtaane wala nga wax ko zaahir bi bàyyi ko dafa am loo xam ne baatin la baatin te yàlla ko waxal boppam huwa wal awalu wa axiru wa zaahiru wa baatinu huwa bi kulli shay'in alimu baatin mën naa ñàkk loolu rek da yoon yàlla duñ ko gis yàlla ne mooy saahir soo taxawee fi mu feeñee da ko gis yàlla daf ne carrément mooy saahir kon soo taxawee fi mu taxawee fu feeñee da nga koy gis gannaaw mooy saay wax googu am na lu ko gën a leer. nuuru dara yi addee si. allahu akbar jërëjëf allahu akbar parce que jërëjëf jërëjëf jërëjëf waaw seede nga ah, ah. waaw yow seede nga. nuuru dara man doomu Alaaji Basiru Sekk laa moom. doomu Alaaji Basiru Sekk Moustapha. ñaan yàlla jërëjëf. jox ma loxo ah. jërëjëf man doomu Seex Musaa la doomu yàlla ci yàlla. لا اله الا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله اهل الجنه يا وقت دغ الحمد لله جرجف جرجف نيب اي ذلك هو الحق الله اكبر وان ما يدعون من دونه الباطل وان الله عليم كبير ay la maabuda bi xaqi illa allah wa gayrullahi xubi dafay baati loolu nag mënoo ko xam mukk loolu da ngaa jeex si ku ci jeex yàlla allahu akbar ku jeex si moom jeex si yàlla allahu akbar ko wax sëriñ ko wax kon la jërëjëf seedeel na borom daaru ci dëgg adduna bi yëpp mar te daf ne jamono dañu mar dañu xiif te seen ndox ak seen naan ci suma loxo la nekk man de suma amoon waruwaay moom xamoo moom looloo tax ñu mu jox ñu waruwaay mu ne man de suma amoon waruwaay damay dégg rek ne am na fu oote ci këru diina moo dégg ko ci rajo bi rek ci rajo bi rek laa koy dégg ma dugg suma waruwaay dem su ma demee dal ci jàkka ji wala dal ci penc bi jottali lii yàlla jox ma mu wax leen kon ñun ñemeetu nañ toog alors suñu mag yi dañu war a toog mag ñu toog moom mu dem ba yor et sukkandiku nii bu bu di waaj daanu te fuñ ne mu ne fa te mooy njëkk a wax mooy mujj a wax mooy njëkk a mos mooy mujj a mos loolu la du def ñun ñun suñ toog yaa ah, jàmm dina am ma ne lii gannaaw bu mu amee Eba Abdourahmane yi fii ci lycée technique bu Kaolack lañ ko bind benn lettre ne dañ fas yéene yàlla yàlla jeex ci réew mi wala ñu xam li ñuy wax ci alquran la nekk wala nekkul ci alquran loolu mu ngi nekkoon 80 beneen bi fii la ci Colobane soxna soxna soxna soxna kuram yi lañ invité mu ne ma sang ñaan il faut ngeen dem gën a fekk na leen oustaz Tayib Socé mosuma toog ak moom kere laa toog ak moom bi firi alquran nii. day firi alxuraan bu yàgg ma ree su ma fa toogoon. ñaan ku tedd kii. xam naa su ma leen ko wax ngeen jom de. waaye xam ne Cheikh Moussa mooy waa ak koo xam ne soo ko joxee mënta liir mu ne su ma toogoon fu ñuy firee alxuraan mu wax lu ñu xamut loolu yéeme na de. dama toog ak benn waay.

mu ne du dëkk contre ko bi Barhama Njaay ne xutbu samaan la mu ne dañ koo oo moom oo ko ne ko mbiru xutbu samaan bii de wax gën ay borome xam-xam ngeen wax leen ci mu waxee aal boo xam ne nag mu ne xutbu samaan du dëkk xutbu samaan su fekkoon dégg mu jàng ko ci téere jànguma ko fenn ci benn téere gannaaw gisuma ko ci alxuraan gisuma ko ci hadis du dëkk mu ne xutbu samaan du dëgg képp ku ko gis wax ma Mahmoud mii nag yàlla dafa àtte lu mu gis rek mu indil ma ko mu indil ma nag wax bi ma ne ko waaw lii nu may def ba tontu ko mu ne ma dañ lay ubbil tiktok ñu topp ko yàlla àtte na ñu ubbil ma ko ma ne leen Seydina Omar Sall man day déglu naa kenn du la wax ne déggoo arab waaye setantaloo sa araab yi setantaloo ko de nga ne xutbu samaan gisoo ko ci alquran yàlla wax ci alquran ne ndax am na ku gën a rafet ci yéen wax ci kuy oote jëme ci yàlla xutbu mooy lan looloo ko nax na loolu la xamut xutba soo demee ci jàkka looy wax doog ne waajaa ngi xutba boo daan wax olof nga ne kii de mu ngi waaraati loolu de la baat bi ne zamaan mooy mu ngi xutba ci jamono ah kii di li muy wax ci jamono gii booleel ñaari nag li muy wax ci jamono gii boo leen ñaari ci arab mooy xutbu zaman ma ne nga ne loolu gisoo ko ci alquran setantal leen seen wax waxi ci arab bàyyim singili sa morom mer rek di wax te fekk xam-xam wax na ko bu yàgg dangay wax ci xel mu sell soo ko jëfandikoo nga raw ndeysaan dëkk am na koo xam dafa sës ci moom rokk mu téléphoné ma mu ne sangi ñaan man de jàng naa fu nekk arabu saudi tey laa door a xam ne xutbu samaan wax la dëgg jàng na mais setantal xutbu zamani ma ne ko yow moom yaa ngi xutba ci jamono waar nit ñi nag ci tawhid yóbbu leen ci yàlla ci jamono bi ñu réeree yàlla nga fexe ñu xamee yàlla loolu mooy xutbu zamaan ci la ñu xam bële na ku ko yëg ko yëg ku ko yëgul yëgoo ko waaye ñu jël ma fi mu nekk xam nga dafa dañ jël sang njaay def nii ñu jël ma def nii déggatuma kàddu googu mu wax ko de lii it noonu lay demee ñii wax ne sëriñ waruñ koo topp sëriñ du yàlla sëriñ du nangam dem na sax bu dugg ci biir ahlu bi ñu di ko ngir réer ak ñàkk ñàkk a màndi ci xam-xam looloo tax ñu di ko wax sëriñ bi yàlla sëriñ mën a lali sëriñ mën a lali sëriñ mën a lali sëriñ mën a lali sëriñ mën a lali da ngeen fekk foo fekk ne lépp lu yàlla rek luy bind la yàlla usine la usine est-ce du loxo dana dox fu loxo di doxee waaye ci yaram bi la bokk est que lii du tànk dina lekk mën naa tibb waaye ci yaram bi la bokk mais dafa am leneen lu muy def lii du bët bët mën naa yenu dara mais dafa am nekk am lu muy liggéey kon waxal ne sa yaram bi yëpp dara bokku ceeg dara te lenn lu leen dafay am lu muy liggéey loolu ñuy liggéey loolu la ñuy dajale jëmm ji yëpp ñu tuddee ko jëmm ji ji est partout Mais pourquoi Parce que c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, égale Dieu. Yalla yàlla yàlla yalla itam yàlla yàlla égal yàlla mi gay yi dañuy jàng waaye dégguñ yow da ngay tok ne ah, man de yalla def yalla def na man na tok yalla def na man na wax yalla def na man na gis yalla def na man na dégg e ndeysaan diw de yàlla moo téye loxoom yi ki téye loxom yi moy doxal sa loxo yi nekkoo fi moo fi nekk moo koy doxal kat moo tax bi waa waxee waxu dof dama ree ba xamatuma mu ne furu de ñàq laa bugg a xam mane ko hey ñàq ak ruu ci jëmm lañ koy xamee du sa doom yaa ci sa biir te génn guñ ruu lañ nekk noo leen di téye ci jëmm la ñuy téye loolu soo ñëwee ci jëmm doo ko xam doo yàlla lay du yàlla yow génnal ci gaa yi bokk ne doo aarif yow bi ñu lay xamal yàlla yow bi ñu lay xamal yàlla foo ne nga ne li ngay janoo du yàlla te nga ne aarif nga ci biir nit ñi génnal doo aarif léegi daqal asamaan dindil suuf dindil nit ñi dindil biddiw yi dindil lépp lu fi nekk ba mu jeex nga wax ñu yàlla ah doo wax yàlla mais gars yi amuñ tontu danañ wax yu ndaw ñu ga ñu gàk gaare waa waa naa ne wax na dëgg nit moom nit moom du yàlla nit mi nga xam ne du lekk waaw oh, da ngay àgg fi muy lekke da dem fi yàlla di bindee nga gis doom ñëw nga gis fu muy bindee fas-fas ñëw nga gis fi muy bindee xar-xar ñëw nga gis fi muy bindee nag nag ñëw nga gis fi muy defee tappi tappi ñëw nga gis fi muy defee lii mu ñëw nga gis fi muy de cuupee couleur yi mu ñëw loolu usine bi di waaye si nga ne Pikine ci dakaar la nga ne Pikine du Dakar Guédiawaye du Dakar ah yow doo xam Dakar yooyu lañ boole muy Dakar yooyu yépp lañ boole muy Dakar yàlla it noonu la moo tax mbir mi déggin la xanaa dégg la li wax muy wax ca golo ga di ci mbaam ma di ca nit ka di yow nag li la réeral mooy mbaam tur yi mbaam yi ak nangam loolu moo la réeral da ngay dàq tur Cheikh Moussa mu ne nit bi mu tàmbalee hijji rek na xam yàlla bi asmillaahi ci sa tur wi lay defee li may mooy bismillah sa tur wi ci lay loolu lay wax seetal lii rek sa tur bii ci ñii lañ weddi xam yàlla lañ weddi doy na rek ñu indi ko ci alquran dafa am koo xam ne day jàngale ci école français yi xale yi jàngi di waxtaan nag mu ne bàyyi leen seen seen seen seen seen seen ñeme yàlla ji te yéen xam yàlla bi ngeen di wax addis bi ngeen ciy jëfandikoo wérut mbooleem muxtaaru addis yi nee nañ addis bi ngeen di jëfandikoo wérut taarifoon yi qabla an taabudoon bi wérut du muxtaaroo addis seen sëriñ boobu nag dama bëgg mu waxal ma fenn ci alquran fu ñuy wax xam yàlla wala ci hadis su ko xamee ma jébbalu ci moom bind ngand lettre yónnee ma ko bi xale bi ak see ma ne xool liiral leen ma ñu liir ko wax ma la ci ne yëpp ma ne loolu la ma ne ma ne tourné leen lettre bi loolu jarul sori su ngeen demee nga ne ko na seet sooratu muhammad fukki aaya la ak juróom-ñeent sooratu muhammad soo demee ne ko sëñ bi nee na baatu fahalam fahalam fahalam annahu laa ilaha illallah wastaghfir bi zanbik soo demee ne ko sëñ bi nee na na ko firil baatu faxalam su fekkee du baatu xam yàlla na ma wax fekkee baatu xam la rek laa ilaha illallah mooy lan xam ni dara ne fi lu du yàlla mu jàng ko sëgg ma ne ko loolu yàlla waxut ko ci alquran mu ne ma am kay ma ne ko yow moom boole na la ci walil muminina wala muminaatu la ci teg faalam annahu laa ilaha illallah wastaghfir bi zanbik lim ci teg mooy walil muminina walil muminaat wallahu mutaqallibakum wa aswaakum hee yow yonent bi a laa ilaha illallah ñu jéggale say bàkkaar ma ne bu leen ragal ñun li ñu yor ku ko yor dugg sa aljanna amatu leen bàkkaar aljanna direct alquran a ko wax mu leer Cheikh Moussa si waxantuwut moo tax su ma déggee ñu ne sëriñ bi waxut kenn dafa lay yóbbu aljanna day day day kii day day eco su fee waxut kenn dafa lay yóbbu aljanna man damay naqadi sax moo ko wax dafa ne lii ma yàlla yor képp koo xam ne nekk na ci yow foo mën a jëm aljanna ku ko jox gannaaw foo mën a jëm safara lool loolu jàngu leen déglu leen ko mu di ko wax ci bànd yi a léegi nuñ mën a wax dag dem ba ca kanam ñu ne kii eh, eh, waxut kenn dama lay yóbbu aljanna allahu akbar oh. waaw dangay ngay dem dëkkaaleeg yàlla wax na dëgg ya li mu wax yàllaa ko wax yàlla dafa ne suñ duggee aljanna ba dugg nañ biir aljanna yàlla dina dina jóg ànd ak gàngoor ya ànd gàngoor ya mooy dekkaale yàlla sa da ngay ànd ak yàlla na ànd yàlla ñëw waa aljanna gis leen bég loolu la wax kon nag ni mu waxee noonu noonu la amee yaa ngi dégg kon amul sikk ne mbir mi nañ ko xoolaat rek mbir mu jege la du mbir mu sori ñu ne léegi nag xam yàlla moom fan lañ ko mën a jëlee fan la mën a wéree tasawuf amut amut amut amu doon ci jamono yonent bi ma ne tasawuf moo njëkk am tasawuf mooy lan du nit ki topp la pour xam yàlla du loolu mooy tasawuf loolu rek la ñuy wax ne mooy tasawuf yàllaa ko njëkk a def yàllaa sàkkaru yi dajale leen ñoom ñëpp njàngale yàllaa ko njëkk a def mu wax ruuy ne alastu bi rabbikum ndax ne ko ma seen borom ñoom ñëpp ñu njëkkalante aaya bi ma ne leen loolooy xam yàlla lu tax ngeen ne xam yàlla jàng ak jullee koor ak ngeen mais c'est que forcé nga def ko xam yàlla boo xamee yàlla nag soo julee mu baax nga xoor mu baax nga dem asika mu baax nga aj makka mu baax nga tëdd di nelaw mu baax ñu ne ma dee tëdd di nelaw bokk ci ma ne ko ankay yonent bi moo ne nelaw ab borom xam-xam moo gën ku fanaanoo julli ba bët sa te xamut loolu la yonent bi wax kon nag xam-xam dafa am mbir yi fu mu nekk il faut ñu seet ko ndax wird di ñuy jox wirda wirda nii wird gi ñu jox nit ñi ñuy wirda jërëjëf Baye jërëjëf ana gaay jërëjëf jërëjëf Baye Ali jërëjëf Baye Ali jërëjëf Baye Ali waaw loolu loolu sëriñ sëriñam la ci doon sëriñam la ci doon gaay leen ci yàlla ru yëpp na yàlla ru yëpp na gudd fan rek ci barke Cheikh ana Ali ana eh kaay leen ngir yàlla soxna yi ñëw de ngeen ngeen ñu yokk ñun ñëpp ñu am barke ñun ñëpp ñëw leen ngeen teral jëmm ju tedd gii kii nga xamante ne moo topp Cheikh Moussa ba Cheikh Moussa def lu mu def a fan gën a wér rek ci barke Cheikh Moussa ah mbir mi neex na de neex na de neex na de c'est Souley neex na mbir mi lu ñuy wax neex na amutul ay li lak ak lëli la neex na li neex moy am yalla neex na kaay leen ngeen joxe di yalla tak gaa yu baax yi bu ñew ñu sol ruu yi yàlla ba ruu yi yëg yàlla nañ dajale jox len jox len di jox ci lañu yalla suñu borom di barkeele ah c'est neex na waxu yàlla du ma waat yi ma ne dama ne neex na jóge nañ ko dund nañ ko kenn ñibbiwul kenn demul kenn buusiwul ah mbir mi neex na neex na neex na neex na waaw jërëjëf baax est-ce que jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf alhamdulilah jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf Baye jërëjëf alhamdulilah jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf addiyees ma si kon nag eh, mbokki jullit ñi mbokki taalibe nañ nañ geestuwaat bu baax Cheikh Moussa cosaanam ba suñ ko defee adduna bi yépp lam bëggoon mu uyu ko léegi mu uyu ko su ko kenn defut nag ndax ñu toog benn xaaja rek def ko ñëpp uyu leen maa leen ko maa leen ko moom nag lii la bëggoon ci adduna bi adduna bi yëpp xam adduna bi yëpp mucc loolu la soxla kon nag nañ farlu nañ def itte jox ko jaami yet suñ ko defee rek mucc suñ ko defee rek raw ci loo xam ne amul benn wérante ngeen baal ñu àq te jéggal ñu euh, ñu yemale foofu waxtaan bi ndax ñeneen itam am nañ ci ceral incha allah ñu jox Seydina Omar. suñuy jaar jaar daal dana wax ni su ko xari doon jar dana ko abonné wu ci seen youtube bu Ndiamé TV bësal notification bi ñu tàmbal la nga mën a abonné ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque jour